benn Korent sar juróom ñett léegi nag ci li jëm ci yàpp wi ñu jébal xërëm yi nun ñépp am nañu xam-xam loolu dëgg la xam-xam day tax ba nit yëg boppam waaye mbëggeel day yëkkati ngëm ku xalaat ni xam nga dara sa xam-xam bënnagul waaye ku bëgg yàlla yàlla xam la kon nag ci li jëm ci lekk yàpp yu ñu jébbal xërëm yi xam nañu ne xërëm du dara ci àddina te xam nañu itam ne yàlla kenn rekk la su fekkee ne am na sax yu ñuy teg yàlla muy ci asamaan mbaa ci suuf ndaxte am na yu bari yu ñu faral di bokkaaleel yàlla ak borom bi ba tey ci nun jenn yàlla rekk a am muy baay bi